gay ñetti kaa ci laay wax benn bi mooy yaa awa rasul yaa awa jëy beneen bi biisu ngoone beneen bi ci tegu manjaay sekk yaa awa jëy danga juum sa communication yaa ngi génn nag di démentir naan waxoo loolu danga ne nii dama ne ko non non non du kii déedéet danga ne carrément du yaa awa rasul yaa awa jëy la comme si que yow bëggoo xam sax yaa a rasul wala bëggoo mel ne moom pourtant yaa awa rasul nit ku baax la nit ku baax la day dox ji social di dimbali ay nit ku baax la wax dëgg yàlla xol bu rafet la yor bari na ay noon nag comme man mais nit ku baax la ku baax la dangaa juum mais nit ku dul juum amul yaa awa jëy dangaa juum nangul na la loolu waxal ne dangaa def erreur rek mu jeex mais ay explication bi maa waxoon ni waxoo lii vidéo du fen comprendre ngeen beneen bi ci tegu mooy biisu ngóone ñu bëri may woo di ma booleeg biisu ngóone naan ma waxal ci biisu jagana ah moom moo valoriser sëriñ ji moo leen indi ci plateau bi biisu ko wax dara biisu sama xarit la sama yaay la nit ku baax la biisu liggéeyam lay def yéen sénégalais yi yéen a gëmul dara nan ngay jëlee palaasu yàlla jox ko nit comme si que yéen yàlla mi ngi Sénégal fa la loosewu palaasu yàlla kenn du ko jox nit ñun yàlla moo ñu jéppi moo tax ñu ñàkk ko bi palaasu yàlla nit du fa amu fa sax accès ba fay jege ngeen jël ko yéen ngeen teg fa nit di jël ay vidéo di ko yónnee biisu naan ko invité ñii maam Ndiaye Savon yéen ko doon wax mu invité ko Serigne yéen a ko doon wax mu invité ko te biisu xam na ne yéen ci ay jaaxaar da ngeen di dox te lu ñàkk fayda rek ngeen bëgg xam ngeen ne biisu ngoone bu invité woon ay oustaz oustaz Alioune Sall wala mu invité ay maam Matar Gueye Jamra wala keneen billaahi bu defee direct bi 2000 vues cent du fa àgg. mais xam na ne ay jaaxaat ngeen bëgg ci lool ngeen di dox te ñoom seen marketing la ñuy def dañ leen di indil li ngeen bëgg deful dara yéen yéen a def erreur bi du biisu duma ko wax dara beneen bi ci tegu mooy Mandiaye sekk gis naa la ngay wax ci sekk Seck naan Wally tegu ko ci yoon naan Wally tegu ko ci yoon ah Wally danoo war a jàppale dafa war a gestu ay rakam Wally defal na leen lu ne boo amee loo yox Wally sekk nga bind ko sa frère la sa frère la nga woo ko wala nga bind ko yaa ngi numéro mais bul toog ci ay plateau di yàq Wally sekk yaa ngi dégg am na loo xamante nii rafetul loo war a wax nga woo ko mais toog ci plateau nan Wally jàpp te Wally dimbali la fu ne Wally jàppale la fu ne seen carrière way ngeen war a defaraat di way way yu baax way yu dëgër waaw Wally dana leen jàppale mais yéen seen kàddu way tamit sa waay demee nan waxante dëgg mais demeewul noonu de demeewul noonu woo naa ma Ndiaye Seck téléphone nag ba ma ko woowee ah moo gën a xam ne man la sax mais laaj na ma yow la kan ma ne ko aadamu mu commencé waxtaan xam na ne dëgg yi ma koy wax du ko attan mu ne dafa am sëriñ bu muy conférence al wala bu fi nekk dina ma woo léegi ñu déglu appel bi gars yi ñu déglu appel bi bu baax ñu déglu appel bi